aca loolu combat la diggante Yékini Jilas ak Mame Fadé Diouf yoon ngeen jàkkaarloog Yékini Jilas Mame Fadé Diouf yoon moo leen wan gannaaw ñu déglu combat bi ba xam fan lay mujjee Kounda sàpp na loxo diggante Djilass ak Diof Yor iyo to jagaanu faaga aussi mo sewat teen mo sewat teen bo neke mbadid na ngel ne yaaga nu aussi in way ngidman to yaakaran to xeɗanelo yaal oxe yasam roog a meri meen yasam te waag na ren xeɗan te waag ka xupuna me i njofa yasam aussi grade nu te saqna te roog a cooyum xa xupna o xeen me i njofa to rooga waagaan yasam te i yaakaar naa aussi vraiment i euh, vraiment ngid moof a leɓe daruna bo roog a ɓisiidin principal CM Marfa fa Marfa fa commune la première année 99 pour cent njegu o leŋ échec no o BFEM ren te gara fi'ma 100 pour cent kon o kiin o vraiment roga fokantangaam fo ten gar ceguma jeg njom daan na ko Mame Fadé daan daan na Yékini la ilaha illallah eh, quel site quel site